alors en mars 2021 euh, euh, ci affaire Ousmane Sonko Adji Sarr on parlait de de quatorze morts en 2023 gannaaw bi procès bi bi verdict bi daano on parle de seize morts officiellement bu ñu sukkandikoo ci euh, gouvernement bi mais gis nañ également yeneen décompte au niveau de Amnesty ak yeneen organisation des défenseurs des droits de l'homme ñu ne lim bi egg na vingt jàpp vingt trois est-ce que lim bi ñu toll xaaroon nga ko ci procès bi mais it euh, gis nañ à travers euh, euh, une conférence de presse un point de presse de la police ñuy wax ne am na des civils armés ñoo xam ne dañuy ñëw rax les forces de défense et de sécurité ci seen liggéey ñeneen ñi jàpp ne ay nervis lañ nan nga gisee situation boobu. waaw je crois que victime yi daf ñu bett ndax président woon na. bi événement mars 2021 passé lu fi amoon du fi amati diggante bi askan yu may ko mu recruter euh, juróom benn junni alkaati ak gendarme ci ren tamit may nañu ko mu recruter juróom benn junni alkaati ak gendarme askan yu may na ko mu jënde ay ngànnaay yu doy waar te gendarmerie wane woon ko ci défilé 4 avril euh, lépp lu personnel d' encadrement police ñu waroon dem retraite téye nañu leen tamit ren def na benn weer ci gannaaw rek dégg nañu ne communiqué en tout cas boo xam ne président moo jël ndogal nee na képp ko xam ne takk der nga y compris militaire ñu waroon dem retraite ren téye na leen bi fin kon mun nañu wax ne. su dee en mars 2021 amuñoon ay ay alkaati ak maanaam ay takk der yu doy yu doy bii yoon am nañu ay takk der yu doy ak ay ngànnaay yu doy pour ñu mun a euh, maanaam gérer manifestation yi sans mu am ay débordement bi ay lu mot ñaar fukk doomu Sénégal ak ñett di ci ñàkk seen bakkan loolu moo doy waar mais mun naa wax loolu yëpp li ko indi du ñàkk ay takk der pour maanaam gérer manifestation yi du tamit ñàkk ay jumtuwaay li ko indi mooy impunité maanaam Sénégal mooy dëkk boo xam ne bakkanu nit fonkuñu ko li ñu fonk mooy matériel ndax soo dégg waa nguur gi seen discours bu bari li ñuy wax rek mooy les casses maanaam toj-toj yu fi am alal jàmbur bu ñu yàq ñun dañ ñun loolu yëpp dañ ko condamné. ndax am na ñoo xam ne jotuñu dara ak manifestation yi yàq ni seen alal même ñu bokk ci nguur gi sax kenn warul lakk seen kër ndax ñun manifestation bi nga xam moom moo tax ñuy woote mooy manifestation pacifique waaye bu état war a pour mu nekk pacifique kon impunité bi nga xam ne moom moom la fi mag Macky Sall Macky Sall lawal ndax du léegi la ko commencé de Macky bi mu ñëwee au pouvoir 2011 2012. fukk doomu Sénégal ak benn ñàkkoon nañu seen bakkan ci fukki soo doomu Sénégal ak benn boobu kenn rek moo ci am atte mooy dem moom Seydou Mamadou Diop yu des yëpp atte wuñu kenn mars 2021 noonu fukk ak ñeent doomu Sénégal ñàkk seen bakkan amul benn maanaam poursuite judiciaire boo xam ne mujj na comprendre nga mais loolu mooy andi impunité. alors ban cri ban. su dee su dee takk daf lu wóor ni que n'est-ce pas nest pas bakkanu nit mun na rot ci seen opération te dara lañ ci fekk mais lan moo leen téye. mais alors ban di ngay jox ñu jàpp ne ay civil armé la gannaaw bi ñu xoolee le point de presse bi nga xam ne police def na ko woon ay nit ñu gis leen ñu yor ay ngarnaay te bokkuñ ci police loolu information ban crédit nga koy jox. xam nga nguuru Sénégal li ñu xamul mooy tey àdduna bi ñu nekk. comme grand place la grand place nekkatul ñaari tali grand place ñi doon fekk ñaari tali wala grand Dakar léegi àdduna bi yëpp mooy grand place lépp lu fi xew dañ ko xam dañ koy xam te jamono internet la ñu nekk li ci waayu wax mensonge d'état ak manipulation d'état maanaam état di fen ak état di manipuler dafa xew yi jeex na. loolu loolu mensonge nga ko jàppee lu ñuy wax ci les civils armés loolu mensonge nga ko jàppee am na. c'est fini tey état. lépp lu mu mënta wax rek à la seconde près mun nañ àndi leneen lu koy démentir te loolu lañ loolu loolu lañ gis xam nga lan moom ñu couper internet dañuy couper internet pour xale yi bañ di filmer ak di woon àdduna bi lu doon xew ci biir terrain bi c'est pas les appels à la haine appel à la nag xam nga double standard la ñoom seeni ñooñ mun nañu toog di def appel à la chez Yérim Seck li ma ko dégg mu wax dëmb ci faram fàcce appel à la lu mu wax lu ñu war a mën a yëngale ak appel à la pour régler problème mu Sonko mun nañu ne quatre-vingt-dix pour cent des sénégalais dix pour cent yi des pour régler problème mu Sonko xam nga nit ku am xel loolu du ko wax nit ku ànd ak xelam du ko wax dégg nañu Moustapha Diakhaté la même chose ak ñeneen ak ñeneen. maanaam mais mais Moustapha Diakhaté seen ñooñ. mun nañu def appel à la haine mun nañu wax ay wax yu garaaw dara lañ ci fekk waaye keneen muy activiste waaye ku bokk ci kujje politique bi loo wax rek ñu jàppale rab yóbbu la ci biir kaso kon ñun tey li nga xam ne moom la ñu annoncé naan dañuy ubbee enquête judiciaire ñun gëmuñu ko parce que ci biir réew mi gis ñu benn procureur boo xam ne. dina enquêter tuumal nguur bi fi lekk tey ñu bàyyi ko mu yëgal liggéeyam ndax wax comme comme kii pour que ndaw wax na ko. da jàpp ne enquête indépendante mënu ci am. mais mënu ci am enquête bi ñu confié justice Sénégal du mus a dugal mukk nguuru Sénégal mukk te du mus a leeral mukk problème nervi yi. yow da nga nervi am na. force occulte doon wax mais c'est nervi <laughs> ana ñeneen ñi doon yore ay ngannaay ak ay fetal ci kii bi on a vu que ñoom rek lañ gis ñi nga xam ne dañuy filmer ñu rek ay nervis ñoo leen gis. di sant bu baax nag manifestation yi liggéey bu ñuy def du manifestation yi sax sénégalais yi parce que am na ñoo xam ne bokkuñ ci manifestation seen kaw terrasse la ñu nekk wala seen palanteeru kër ci étage ñuy filmer ñu doon filmer c'était pas les manifestants c'était les yi nekk seen kër. mbir mi di xew ci suuf ci tali ñu koy filmer ñu ngi leen di sant bu baax ci liggéey bu ñuy def te ñoom ñoo tax tey ba li li ñu police bëggoon gëmloo n'est-ce pas ñu dindi ko nu mu gën a gaawee. li mel ni journal Le Monde ak France 24 ndax tax nañ tax nañu ba tey problème bu nervi yi adduna bi yëpp xam ko xam ne nervi yi n'est-ce pas su dee Euh, mënuñu wax mun mënaguñu wax ne bokk nañu ci parti au pouvoir waaye mën nañu wax ne en tout cas état Sénégal daf leen toléré. est-ce que manifeste gis nañu leen en action police gis na leen gendarmerie gis nañu leen jéemuñu leen arrêté am na foo xam ne sax dañu doon lënkaloo yëpp gis nañu ko tey médias internationaux nañ ko kon tey les nervis la ñoom xam nañ kan mooy nervi